li ñu lay qualifié de de de, de euh, lu lu lu lu la est-ce que. Euh, non may mun a xam nga di xam nga dafa am euh, xam nga nit ku nekk ak ni la yàlla bindee man Bill Gates moo seet si woon tey xam ñëpp xam nañ ne ñëpp jàpp nañ dafa bari alal suy ñibbi mu may ko paas da xam nga Bill Gates. Mhm. xam nga ne lañ bari na alal bu ma seet woon. buy génn moom may ko paas du ma seet li mu yor lu mu doon ñaatal la am ak na mu ko amee sama yoon nekku ci loolu laa seq ak doomu aadama yi mais loolu mënuma ci dara mbind la lu ma am bokk ak nit ñi maintenant bu nekkee loo am bokk nit ñi nit ñi dañuy am na ñoo xam ne dañuy jàpp ni euh, li nga am du jeex ñenn ñi jàpp ni da nga doon nitu yërmande mais yàlla xam na ci des moom maa ngi sant yàlla mais est-ce que sa patrimoine euh, say revenu je justifie na ko tout tout sa kër gi ma dëkk Almadies dama ko jënd fay ko sur plusieurs années notaire yi ma ko yi transaction bi jaar ñu ngi fii un premier terrain que j'ai acheté jënd avec maître Badiane ki mu ko jaama di ko fay 2002 ba 2005 may fay mu doog ma jox sama titre foncier keneen ki di jaay ki mu taxaloon ma fay ko ba mille 2009 2010 documents yi ñu ko fayee mu ngi ci notaire c'est comme ça maintenant mën nga gis kër gi bon yaatu na way dafa def nii dafa def na li fekk euh, j'ai galéré euh, pour pour pour pour pour avoir la maison maa ngi sant yàlla maa ngi sant yàlla nit ki aussi yàlla bu la defalee sutura da nga koy da koy sant li ma wax léegi nee naa la impôt ni muy day bu amee ñu ma fa gën a ëpp ñu ma fa ëppale li ñu fayee ko bu amee it bariwul mën na am na mais loolu yàlla moom koy suturaale donc moo ko ci sant bu baax ça c'est des choses que même pas dire moo tax ma limal la léegi ñi nga xam ne ñoo doon fay xam nga nag journaliste nga am nga droit def investigation da ngay dem ci ñu doon fay nga laaj leen waa Amadou Ba moom ñaata la doon fay ko doon fay dana la ñetti ah weer bi de am na fi nangami million bii de am na fi nangam bii am na fi nangam durant une carrière de 30 ans je rends grâce